bu baax te di leen siyaara di leen ndokkeel di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Mountakha di ñaan sunu borom mu yàggal ko fi te wéral ko euh, ñi ngi nii taxaw ak Serigne Afia Bousso imam mi nga xam ne mooy kilifa ak daayira Muxaddamatul Xidma ak euh, kilifa yi nga xam ne ñoo topp ci moom taxaw nii ñu ñëw di seere jëf joo xam ne euh, ci bi ñuy tëj ci liggéeyu màggal gi Cheikh Mouhamadul Basir mi nga xam ne moo yor kàdduk sëriñ bi ñëwoon doon yeewu mbooloo mi nga xam ne ñoo doon liggéey ci màggal gi tasanteeg ñu doon wax ak membres yi nga xam ne ñoo nekk ci biir réew mi ak bitim réew ngir xam ngeen ne fii ci jumaa ji sëriñ bi joxoon na ndigal waa fédération Espagne ngir ñu yeesal tapis jumaa ji muy biir gi ak bitti ñu doon soññi membres yi nag ngir ñu xam ne biir jumaa ji dafa war a am ginnaaw yeesal nañ tapis biir gi ak bitti gi mu yokk bi ak biir jumaa ji ay machines yu ko accompagner yoo xam ne dafay dindi poussière bi te loolu nag doon ay jumtuwaay yoo xam ne matériel lay doon bi nga xam ne mooy bi gën Cheikh Amadou Bassir nag bi mu déggee kàddu yooyu ci saasa ca jataay ba la waxoon ne moom dana sasoo incha allahu rabbi eh, génne addiya joxe ñu jënd ay machine waaye kon nag ñun taalibe yëpp nag nañ nañ ci gore te am ci pëstéef am ci dogu ci sa yitte ji na ci ku ci ku ci mën a jëf rek na ci jëf ndax liggéey Sëñ Tuubaa te ku ci jëfit jëf ja dana àgg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 mu jënd ko indi ngir moom wuy na ci liggéey bi jiital na ci jëfam def ko ci turam def ko ci turu Cheikh Amadou Mountakha kon nag mboolem diaspora bi ak rawatina cellule yi daayira Moukhaddamatoul Khidma ak waa dëkk bi muy ñi nga xam ne ñooy opérateur économique yeeg ñi man dara te bëgg liggéeyal sëriñ bi aw làcce ngi nii aw xàlla ngi nii wuñ mën a liggéeyal sëriñ bi ndax ku jënd am machine kat buy bale jumaa ji mel na ne yaa ngi xëy di bale jumaa ji saa su nekk kon ñi ngi soññ ñëpp di di di leen séntu ci ñu indi matériel parce que machine yi du doy fii ci jumaa ji mboolem xeetu machine bu nekk dafay yombal liggéey bi te xam ngeen ne jumaa ji dafay jël dafay laaj saa su nekk ñuy dindi poussière bi ak lépp loo xam ne mooy li koy dindi. kon Serigne Assane Diop mi nga xam ne moo moo moom la Serigne bu soo boole woon ak mbooloo mi nekk ci bitti bi nga xamee ne bëgg nañoo barkeelu euh, Serigne Mbacke Ndiaye bi mu téléphoné Serigne Afia ne ko kat bi ñi nga xalaat ngir barkeelu ci matériel bi. da ko boole woon ak sëñ Asan kon sëñ Mbàkke kon euh, la ngeen waxante woon ak sëñ mu boole woon la ak sëñ Asan kon jëf ji tàmbali na Cheikh Amadou Bassir jiital na jëf ji ci fii ci liggéey bi kon ñu ngi séentu ñëpp jàpp naa ne sax fi mu ne nii ñu ngi ciy soññe kon soññe bi nañ xam ne kon jëwriñu borom liggéey bi jiital na jëfam kon ñu ngi leen ciy soññ bu baax a baax di ci séentu ñëpp di ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu indi ay xéewal yoo xam ne kenn ku nekk dana ci mën a dana ci mën a def ni nga xam ne noonu nga ko bëggee ci darajay sëriñ bi ci darajay xaadim rasul asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu